minute ñu génnee ko pap mu mel ni comme bi nga xamante moom la ñu njëkk am ci euh, plan de travail bi daal di jàll nag ci partie bi nga xamante ni moom mooy partie dégustation bi merci beaucoup Pape Cheikh merci à tout à l'heure Alfie et puis démb ñu ngi leen di wax ni euh, am na ay livres yu ñu bëggoon euh, présenté ay sotu pay fi mais ñu ngi leen koy xelal bu dee li ñuy waxtaane tey gis ngeen ci seen bopp xam naa Maodo ba fajar lay doon tey ci télévision Futur Média livre bi ñoo ngi ko tuddee une tarixa cachée dans chronique ki ko bind di euh, Amath Dieng livre la boo xamee ni euh, mën ngeen cee gëstu am na itam beneen livre boo xamee ni ki ko bind di Alaaji Moussa Amadou Ba euh, moo ngi ko tuddee la tarixa tidjaniya voie d'amour et de louange à Dieu guide pratique la pour képp ko xamee ni rek bëgg nga gëstu ci tarixa bi am na itam beneen livre boo xamee ni génnagul waaye boobu ba tey maa ngi leen koy présenté Marianne muy lu toll ci cinq cent soixante-dix poèmes yu sunu xarit bind ci ki nga xamee ni mooy euh, Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam fondation Kër Rasoul euh, ki bind nag di Mouhamed Abdallah Thiam euh, serviteur du prophète livre bi nag dina génn ay fan yu néew waaye daal ay poème la yu bëri yu am solo yoo xam ni moom bind na ko jagleel ko ki nga xam ni moom la ñu ne mooy borom barrière or ba ca Médine te boo dégloo waxtaanu kilifa yi rawatina waxtaan wi nga xam ni Serigne Souleymane mu ngi koy waxtaan ak ñun sànq ba tey ci Maodo tu te rends compte defe naa leer na euh, nabi euh, ci euh, livre ak ay poème bind bi mu ngi toll ci cinq cent soixante dix poème Marianne sànq yaa ngi naan livre bi daf la neex waaye génnagul de dama la ko jaayagul de. waaw génnagul Pape <laughs> mooy wane rek mag ñi liñ fi liñ fi bàyyi woon rek xale yi ñu ngi leen di roy ndax mm-hmm. Mouhamadou Abdallah Thiam mi mm-hmm. bëgg yonent bi sallallahu alayhi ak cofeel bu mu am ci moom moo waral mu def lii dalay leen ni lii ay guddi guddi nelaw yu bëri la la dagg ngir mm-hmm. mën a ngir mën a amal lu ni mel donc ñu koy ndokkeel 570 poèmes nga xamante ne mag ñi lépp lu lu ñu am rek fii mhm. euh, bëgg yonent bi salaay salaam moo leen ko may kon ñu koy ndokkeel bu baax ci poèmes yooyu euh, ñu jàll nag pap ci question internet yi ndax mhm. bëri nañ mhm. xanaa ñu jukki ci tuuti rek euh, tàmbale ko par Sutamadou Sow moom nee na li mu bëggoon tuuti rek sëñ bi ñëw ci nee na mooy façon wu dundinu Sidi Hadj Malick ak doxalinam ak yeneen ñeneen ñi nga xamante ne ñoo fi nekkoon fii ay kilifa diine mama fama maman Fama Ndiaye ñaan euh, moom nee na dafa bëggoon rek euh, tuuti sëñ Ba ñëw bu ko mënee bu buñ ko temps bi permettre mu ñëw ci yenn ci bindu Sidi Hadj Malick euh, sànq mu ngi doon wax ci diggante Sidi Hadj Malick zawiya yu mu fi taxawaloon kii moom mu ngi ciy ñëwaat muy Mansour Faye nee na dafa bëggoon xam rek temps wu colon yi ni Sidi Hadj Malick secret yi mu amoon ngir taxawal li nga xamante ne moo di zawiya te neen dafa seetlu ni zawiya yi daanul woon sori fi nga xam ni foofu la gouverneur daan nekk mu bëggoon xam am secret bi Pathé euh, Pathé Ndiaye waaw Pathé Ndiaye moom nee na dafa bëggoon xam rek mu ñëwaat euh, ci euh, tubaab bi nga xam ni dafa doon wax ni bruit jàkka ji daf ko daan déranger nee na Sidi Hadj Malick ni mu réglé woon problème tubaab bi. Mhm. bëggoon na ko xam su koy fay su koy fay nee dafa bëggoon xam at bi nga xamante ne moom la Sidi Hadj Malick njëkk taxawal li nga xamante ne moo di gàmmu moom la bëggoon xam terminé ko rek par Serigne Abba Sall moom li mu question sauf que moom li mu laaj mooy nee na fi nga xamante ne foofu la cathédrale nekk euh, nee dafa bëggoon xam nan la Sidi Hadj Malick def ba mu jàkkaarloo woon ak zawiya bi ndax nee na foofu moo nekk tey fi nga xamante ne mooy ministère de l'intérieur donc le fait que mu ñëw taxawal zawiya bi mu jàkkaarloo cathédrale nan la def ba lu ni mel taxaw. macha allah macha allah jërëjëf internet yëpp ñu ngi leen di euh, gërëm continuer leen di yónnee commentaires yi ak question y nga xam ne ni euh, bëgg ngeen ñu tontu ci je pense que loolu nga laajte sànq Mamadou Ndiaye ba bindal ma ko nii historique gu euh, Zawiya bi biir biir biir Dakar. voilà biir Dakar substituant colon yi nekkul woon bu def ko ci dal. ak jàmm bal mhm. dara yëngutuwul mu def ko ci jàmm. loolu on va on va remettre am nga ci am nga ci kàddu Mado. bala soxna Awa Traoré bu imam damay ñëw ci diggante taaleen yi ak famille euh, Hadj Malick bu muy wax ndax ñoom tarixa moom moo leen boole woon wala dañu bokk ci euh, dañu am ay liens de parenté. mu bàyyi ko mu répondre ci question après. waaw dama xam ne bu tàmbalee du ngeen waxati de. moo tax ma bëggoon ko tasaare rek Aïcha Ndiaye Ndiaye demal waaw. Uh-huh. parce que bañ mu tàmbali ñu koy dagg en fait. Uh-huh. waaw loolu loolu loolu am na. Hmm. wax ci am na solo lool ndax man sax jot naa ci gëstu. maa lay wax nii bokk naa sax ci daayira je suis murid waaye bokk naa ci daayira Tijaan. macha allah xamante ne nii chaque fin du mois damay cotiser. am na solo lool lool lool lool. Hmm. bàyyi ko mu yeggale rek. ok Yacine. waaw euh, Pape euh, man je suis curieuse de nature si loolu mhm. donc na euh, ma bëggoon xam rek maam Maodo lan la jot a wax ci jawatu Kamal nga may ñu ci tuuti rek ci njëriñ ñun xale liñ ci mën a jàpp. jawaratul Kamal Cheikh man dama ko doon laaj ndax moom dafa am daare daara bu muy jàngalee xale. Mhm. parce que da nga wax sànq wax bu am solo. Mhm. ni Sénégal di fi nekk c'est exceptionnel. Ah. bon parce que doo fi gis benn xale bu xamul Serigne Touba wala Sidi Hadj Malick wala Bou Kounta wala. ñeneen sunu mag ñu baax ñooñu. Mhm. dem naa Maroc beaucoup pas mal de Marocains bu ma leen laaj euh, Cheikh Ahmed tiijaan dañ may wax ni xamuñu ko. Mhm. ma ni leen Fès ñu ni effectivement xam nañu Fès mais xamuñu si Ahmed Tidiane. mu mhm. impressionné ma trop foofu ca Maroc. ca biir Maroc. xef ak ni mu jegee bët la rek. waaw te Sénégal doo fi loolu. waaw ci ñàkkam jàngale. lay wikku wala ci ignorance la wala lan. waaw benn bi ndax am nga daara ñaar loolu. voilà donc je que question yi question yu bëri na tubaarkàlla. dolli la xam naa question la buy jigéen ñi. wala lu ñuy bëgg mu dolli ñu la. wax na sànq ci maam maam Fawad Wele. ñu bëggoon mu may ñu ci dundam tuuti ndax ku wax Seydi Hadj Malick. di nga wax maam Fawad Wele. di nga ñëw ci maam Roqeyetu Ali Boy itam. bëggoon nañu tuuti daal Fall ci waxtaanam. Mhm. mu dikk ci soxna yu baax yooyu. Mhm. ndax euh, jamono boo gisee waxtaan rek am na koo xam ne bu nu ko doolee mu jël macha allah. Mhm. ci jigéenu valeur yooyu nga xam ni. macha allah macha allah macha allah. bëgg nañu daal bu nu naree. jàdd tuuti ñu fàttaliku leen. macha allah macha question yu bëri na. tabarakallah xam nga fan laay tàmbalee. waaw <laughs> c'est tellement passionnant te bëgguñu ngay wax it ñu lay dagg. di ma ci gën a di ma ci gën a neex daal. waaw mooy question bi ma saa neex waaw. tabaarakallah ndax yor naa daara bu may jàngalee yàlla dogal na ni man damay jàng ba léegi. Mhm. sama sëriñ mooy sëñ Babacar Sy Abdoul Aziz Dabakh. bu ne ci zawiya mhm. damay faral di wax samay waxtaan sama jàng soriwul sama jàng yi soriwul sama jàng mooy savoir bi soriwul. sama jàngi bërëb bi ma demee jàng ji soriwul. Mhm. ndax Tiwaawan laa juddoo Tiwaawan laa jànge ci taatu sooroolu Seydul Xaaj Maalik kon ba léegi nii fa laa jànge téere yi téere yi may jàng la bokk ba léegi ci loolu lañ toll ay ndongo daara lañ ñu nekk ci loxo sëñ Babacar Si Abdoul Aziz Dabakh ba léegi mu ñuy jàngal macha allah tabaarakallah mhm. mu tegoon si zawiya Sane am na beneen na ku nekk benn rek kon ah. ok waaw ok. Ah, waaw bi. fi mu nekk fii ci Dakar. cathédrale ministère de l' intérieur. ok maanaam gis nga yàlla. Mhm. moom mooy affecté nitam ci bureau ba mu koy liggéey loowee. waaw lépp loo gis nit di ci sonn. tudde ko yàlla sonn ci sonn ci te sottiwul na ko tudde leneen loolu yàlla bu la yàlla naroo dox loo dox bërëb. booy jóg yëf ya day day yomb moo tax zawiya Alaaji Malick pour mu nekk ndakaaru jàkkaarloog cathédrale bi nekkul woon lu neex tubaab bi waaye yutaacu bil wilaayati laa bi diaayati wa kullu mutaacin bil wilaayati mursalu képp ku yàlla yónni dox loola la ngay dox yaa ngi dox ci yonentu yàlla waaye li ngay jëflanteel yàlla moo leen tàggatal seen xol mhm. gis nga naa la ubbil benn parenthèse foofu dafa am benn benn sama benn mbokk la dañ ko yóbboon ci benn front ci guerre yi ngi am ci ci ci ci ci Afrique. moom moo dem ba fexe fa ñu am mbalaanu wasifa. tey wasifa. di wasifa di wasifa mujj gi bañ fa commencé wasifa teguñu ci semaine bal tàkkatu fa ba ni guerre bi jeexee. Maodo yàlla defoon na ci moom amul nit kuy gis Seydou Hadj Malick ba mu laaj la li mu bëgg te joxoo ah simatul kazaka iqlimuha fi kulli buldaani kon Seydou Hadj Malick jëflanteem ak tubaab bi du woon lenn. moo doon nanguwul lu tubaab bi nangulul tubaab bi lu yàlla di bañ moo doon kenn fees bëtam muy yàlla moo doon képp ku mu jàkkaarlool ak noo mënti toll gëm nañu doole yàlla moo ëla ëpp doole moo tax moo du dellu ginnaaw ci kenn moo tax du dellul islaam ci kenn du dellu gannaaw ci islam ngir am leen lu mu bëgg a taxawal dafa lay song imposer la fatih lima uliqa imposer la laa ilaha illa allah laa ilaha illa moom koy yu middu moo koy moo koy tëbb ci ay kattan ba li mu bëgg nga def ko wax naa sànq gis nga nuune bi nekk ci rahmaan yi yàlla daf ci bind ay malaayika yoo xamante ni malaayikatul nasr lañ tuddee mooy malaayika yi nga xam ne ñooy dimbali nitu yàlla bu namee dara ñooñu bu Maodo waxoon dama bëgg zawiya bi ñu tuxal palais gouverneur def fa zawiya bi mu war a dogu ci yàlla koy defal loolu ndax inna lillahi ibadan ida araadu araada am na ñoo xam ne si jaamu yàlla yi bu ñu bëggee yàlla bëgg te Seydu Xaaji Maalik si ñooñu la bokkoon waaye ànd ak li mu doon bëgg yëpp du laaj taalibe bi lu yàlla moom du laaj taalibe bi lu waajuram moom te du laaj taalibe bi li ci poosam wala tutaalibhum min al qalili wala min al kasiri yaa xalilu moo a mu ni taalibe bi waxuma la tubaab waxuma la kenn taalibe bi sax bu ko laaj donte ni li nga koy laaj lu néew la kon jëflante Maodo ba mu am acquérir li mu am mooy zawiya bi mu def zawiya bi amalahum fillaahi waaye ala xosni siyaasatin dafa jëflanteeg ñoom ci siyaasa wu rafet li xale yi naan bal tàkkul sagar xeeñul bal lu tàkk sagar du xeeñ ndax Seydi Xaaju Maalik ci ndigalu yàlla lay dox. kon wasifa mooy suñu jàmm. wasifa sécurité la. sa ne am na am na benn benn benn benn benn question question boobu neex na ma trop. Mhm. waaw mhm. xam nga Sénégal bindoo. buy dégg ñu naan la Cheikh na Tidiane Cheikh na Tidiane nga dem Faas. Mhm. certainement tu te poses la question. nga gis mu xaddama bi ni ñu mel fii. Cheikh daan na toog ba ne ana mid faul kabir. Mhm. man maay. këno gu mag këno gu mag gi. ar mboodin su ma dóoree fu sori lay dal. mu ni su ma dóoree bu kano gi tàkkee fu sori lay dal. moo hmm. tax ngay fekk ci taatu zawiya Cheikh na Tidiane koo xamante ni waxuma la gëm Cheikh waaye gëmu sa tasawuf moom la jaaxal nag Seydina Muhammad sallallahu alayhi boo demee ca Makkatal Mukarram Madinatul Munawwara Seydina Muhammad a gën ñëpp sallallahu a wa sallam ah? am na ñoo xamante ni bii Seydina Muhammad lam fay dëkk dëkk dëkk buñ la laa boo leen laajee kañ lañ fa gëj ziyaare ñi nga wet buñ la ko waxee dana la dana la jaaxal mm-hmm. xam nga Sénégal dañ naan la kër diine sangam ñëw faa tux cigarette mm-hmm. ah man dem naa Makkatal Mukarram mm-hmm. gis nga boo yéeg escalier yi fu la oto yi wàccee pour ngay dem ci kaw xaram bi dañu naa fa ak benn naar <laughs> toxatox bam mu mu jël li desoon ci mégo beeg paquet bi def ko ci biir armal bi tanaan labbayka allahumma labbayk subhanallah mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. ah ànd ak màgg gi Seydina Muhammad màgg kon ànd ak màggu Cheikh na Tidiane yi laa ma xaalata fi dalik ma ubbi la benn parenthèse cheikh pour mu nekk li mu nekk dafa bokk ci lay yi nga xamante ni mooy dëggal ni cheikh mooy xaatimul awliya yi an yakuna mubtalan bil inkaari mm. dafa bokk si li nga xam ni moo koy confirmer mu nekk kuñ nattoo ay weddikat maanaam noonu lañ ko sonalee woon ci biir Fass waaye zow yaam boobu li tax mu am ko jafewul jafe na trop waaye sirru boobu la Maodo am ci moom ba tax mu am zawiya yi ci biir mhm. biir Sénégal mhm. te zawiyatu Cheikh zawiya Cheikh na Tidiane mooy ummu zawaya mooy ndayu zawiya yi mhm. waaye ci biir Sénégal zawiyatul Xaaji Malik ummu zawaya zawiya Seydul Xaaji Malik mooy ndayu zawiya yi li tax bi ko moo day ñemee samp fi mu koy samp kenn ñeme mu faa def leneen leneen bay samp jàkka foo xam ne kenn ñeme mu faa julli yow nga ñëw indi jullikaay koo xam ne ku julli ñeme moo faa taxaw yow nga ñëw julli ba taxaw di wasifa war na ñoo xool kan mooy Seydi Hadji Malick tabarakallah loolu ci question yi dugguma ci dugguma ci góor gi de voilà na leer Muhammad ma zaayaw bal daa dugg ci góor gi baax na baax

Yacine tam am na lu mu laaj laajte walaay ni jàkka yi ak jumaa yi ñooy suñuy affaire nag. wallaahi mooy suñuy affaire. Euh, wax nga ci jawar euh, waaw dama doon laaj rek waaw maam Maodo la ñu mën a jàpp ci lu wax ci jawar jawharatul kamal. Mhm. laaju xale de. xam nga jawharatul kamal. Eh. boo gisee Maodo. Mhm. ci boppam am na jawharatul kamal bosu boppam. da nga ma laajte nag. boobu de paquet bu bees tàq la moom. Ah? luñ koy dégg. Kamal <laughs> mooy Malick. waaw ah? mm-hmm. mooy wurus. waaw mooy xilaasu Maal Alaaji Malick. macha allah. mooy xilaasu zahabu Seydul Haaji Malick. Jawharatul Kamal. Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa moo ko doon dicté Seydina Ahmad Tidiane. waaye moo doon jàngal ñu ci ni nit ñi mën nañoo toog. wër mbalaan mi cent vingt quatre mille personnes ku ci nekk di wax ci benn baat salaatan tu arifuna biha iyaata bokkuk la sama morom di wax benn branchement la boo xam ni ay naanukaay yu bëri ñoo ciy génn ndax xam yonent bi dafa am ñoo xam ni lu xam-xamu yonent bi bëri bëri bëri ci jëmm yonent bi la seen xam-xam yëpp mm-hmm. am ñoo xam lu seen xam-xam bëri bëri bëri mi ngi yem ci bakkan yonent bi am ñoo xam ne lu seen xam-xam bari bëri mun ta dem dema dem ba egg ci li ñu wax mooy sirru rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu toogee salaatan julli goo xamante ni to arrifu danga nga naa ñun iyaahu ci sayyidina Muhammad ci bihaa ci julli gi iyaahu ci rasulillahi kon sayyidina Muhammad mooy aynu rahmati rabbaniyati mooy jëmmi yërmaane gi ci ko jóg yàlla Seydu Xaaj boo ko bëggee xam nag jàppal ni Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nii bu ñuy wóodi fa di ko wax lu wax ma la benn affaire tey commencé tey bu la neexee amul benn amul benn werd amul benn tarixa amul benn sikkarkat boo gis muy tudd Seydina Muhammad an ko ifaadatika min ka ilayka mm-hmm. bu dul tijaan commencé tey adduna yëpp wër ko mm-hmm. amul kenn kuy wax Seydina Muhammad ifaadatika min ka ilayka Hmm. amul lan maanaam liy jóge ci faydu yi ci yonent bi lay jóge waaye ci yonent bi lay dellu ndax yàlla suñu borom subhanahu wa bi mu dogoo ci amal lan mindee fi alxaqiqatul muhammadiya la jël dinaa dugg sànq ci du xaaji malik abaana min nuuri bi mu jëlee leer googu leer googu la yàlla woo kaay mu dikk demal mu dem kaay mu dikk demal mu dem leer googu mel ni luy ñaq ah. ñàkk googu mooy commencement àdduna ñàkk googu bu ñu ko doon nasale fa ma waroon dal moom la kaaba ga nekk tey moom la yàlla gis nga suuf si ñu ñu toog nii pap mhm. cosaanu suuf xam nga la lool ndox yàlla da koo wayal fasaara xadd xaadan fa jufat fasaara turaab da koo wayal bi mu ko wayalee mu nekk benn pat bi mu ci ëppee ngelaw la nekk suuf si ñuy nekk nii. waaye moo dellu si la ci ifaadati ka min ka ilayka kaaba gi fa nga xamante ni fa la toq ndox yooyu doon jóge Seydina Muhammad doon dal fa kaaba gi nekk tey. le centre de la terre. mu ngoog mooy kaaba mooy foofu la. mooy Kaaba gi li tax mu nekk ko nag mooy leeru yonent bi ko moo ko sos. Seydina Muhammad mooy centre de l'univers centre des créatures. Ah mooy Rasulillah yi fa ñàkkam daan dal mooy centre de l'univers loolu moo tax ifaadatika minka ilayka moo xam ne beneen secret yàlla fexe na def na bi yonent bi bi muy faatu faatoowul faatoowul Makka Madina la faatoo waaw kay moo xam ne yàlla xam na ni jool Makka bu faatoo woon Makkatal Mukarram kenn du ko denc fu dul ci Kaaba gi te buñ ko dee jël ci kaaba gi ñaari leer yi yàlla li mu def Seydina Muhammad def ko ci baatu rasulillah yi def ko ci jëmmi Seydina Muhammad bu ñu leen boole woon a kaaba gi ci benn bërëb hmm? laa naabudu rabbal bayti walakin naabudu al bayta badala rabbil bayti maa ngi ñëw bu yàlla defoon loolu dafay mel ni ñaari ñaari attraction yooyu yàlla boole ci force bi ñu am danañu xëcc nit ba mu ñëw ci moom dootuñu jaamu yàlla mii borom néeg bi waaye néeg bi la ñuy jaamu te yàlla daf ne fal yaabudu rabba haadal bayti nañu jaamu borom néeg bi waaye bu yàlla jëloon yonent bi leeram ak kàttan bi mu def ci moom mu boole ko kaaba gi mu nekk benn bërëb ku ñëw dootoo gisati yàlla dootoo di gisati sayyidina Muhammad waaye leer gi moo lay xëcc te abudul bayt yàllaa ñu xam yàlla moo ñu xam nag <laughs> aka ñoo miin ah? moo ñu xam nag moom yaa ngi dégg loolu moo tax xataa bi xataa yonent bi bu daan julli di jublu ci kaaba gi ifaadatika minka ilayka mi ngi jublu ci kaaba gi waaye mi ngi jublu ci boppam ndax kaabatul wujudi mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax leeram mhm. moom Seydina moom Seydina Muhammad ci lañ bind kaaba gi moo tax bu kàbbaree labbayka allahumma labbayka yatuufu nafsahu bi nafsihi fi nafsihi fi tawaafihi moom rasulullah moom rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wër boppam moo tax bu ñu ci ifaadatika minka ilayka dañ delluwaat foofu Seydi Hadji Malick jàngal ñu ni kon li yëpp Seydina Muhammad la incarné waat ci biir ci biir ci biir ci biir jawharatul kamal ah tabarakallahu te arrahma mooy aynu rahmati rabbaniyati dégg nga mooy jëmmi yërmande yàlla ji yërmande yàlla bu doon jëmm Seydina Muhammad la tudd sallallahu alayhi wa من رحمة المعدات سعاد عبد العزيز مالك سقطنا رضي الله ما سيدنا أكرم بي من رحمة المهدات ndañ dugg ma ci góor gi déedéet boo koy signe man ma daa dugg ci góor gi man saati oh baax bisimilah ñu dem si masala yi ci ci ci macha allah question yi Eva waxoon na ci maam Fawad Wele. ci oh, euh, lu ñu waxoon sànq ci ah, <laughs> nañ ci sànq. donc waxoon na ci maam Fawad Wele itam. Mm-hmm. jigéen ji. waaw kay xam nga foofu dama bëggoon nekk bay dugg ci njabootu Maodo yi. waaw ku ci nekk ma indil la woy jur wa. yaakaar naa ko temps bi may. waaw ah, kay yaakaar naa ni comme man dama xamul temps bi muy tëddee parce que. dama bëgg mu yaatu Maodo moom. Eh. géej la. man moo tax ma avertir la sax la ndax programme mu télé bi lëmm. Eh. ci bis. gis nga mën nañ cee waxtaanee Maodo Oustaz. te wax dëgg yàlla Maodo bu ñu wax ci moom. wallaahi dina jaaru ñu dugg ci lim bind ci Sidna Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam dina jaaru ñu dugg ci njabootam lan la ñu bind. Mm-hmm. ndax Maodo école la yoroon. nekk professeur bu jàngale. waaye maam Roqaye Ndiaye. tey Ali Boy. jigéen na jigéen na ngoog goo xam ni song na. sombi sombi boo xamante ni bii bi mu ko yàkkee du sombi sombi na sombi boo xam ne bi mu ko yekkee du sombi lu mu yàq xam nga da naan sombi nga fi sombi boo xam ne est-ce que ko mën a naan dëgg la waaye moom da koo sombi waaye du sombi bu ñuy naan sombi boobu xam nga kan la Serigne Babacar Sy borom borom yaa warisal bi ak maamam tewu tu sabay cheikh al mashaayikh ngañ ngañ dinañ wax ci sëñ Babacar léegi am na ñoo xam ne ñu ngi naan Souleymane Témo bàyyi ngañ way wala mu firi li ngañ di way man kay dégg naa sax ku ne léegi neel Jules na fanaan ak ñun ba ba ba xëdd Jules sax lañ la wax ndax àll ah? dégg naa léegi ku ma ko bind ne ma neel Jules na dem ak ñun ba fajar naa koor gi moo leen jàpp a ma rek li mu way mm-hmm. mm-hmm. mooy ne comme yaa ngi wax Serigne Babacar mu bëggoon mu may ñu ma bi nga xam ni mm-hmm. Serigne Babacar mu ngi ko wax ci Sidi Hadj Malick tey Mariam léegi defal naa loolu defal naa ko ngañ est que maanaam dafa am nu ma ko buggoon a doxale macha allah suñu toll nii ba léegi ñëwaguma ci ci góor gi géej gi géej gi mooy Maodo dex yee ko wër. korite lañ jëm korite. xam nga du góor gi mu ni man waaru naa ñu ne ko la waar mooy ki ñëw jàkkaarloog géej. waaw jàkkaarloog ay dex. macha pare di jàmbat mar. wal bahru wal anaaru fii janabaati mawdo. nee na huwa kenn du moom. huwa ki ñuy waxtaana tey. du Seydul Xaaju Malick si góor ga ca Tiwaawan. waaw al bahru. pap ko doon seet lu muy symboliser mooy géej. huwa albaxru wal anhaaru fii janabaatihi sunu maam Maodo. nee na géej gi wal anhaaru ay dex a ko wër. génnagul. ay dex ñoo wër géej googu. ay yaxtazama man kaana fii janbil baxru. nee na maa ngi laaj ndax nit dina jàkkaarloog dex yi. ba pare démarre ñu ne ko kan mooy géej ga mu ni Seydul Xaaju Malik kan mooy dex ga Serigne Babacar Sy kan mooy dex ga Alaaji Mansour kan mooy dex ga Dabaax Malik kan mooy dex ga Seydi Mouhamadul Habib waa di nga jàkkaarloo ñuy di jàmbat Awmar Seex Seydil Malik sukrul wasaiti góor na sant ku nekk sant sa sëriñ war war fa kayfa bi man. Seydou Hadji Mansour moo ko wax da ngeen may baal ak Habib. ma eggale ma tontu yenn question yi ñu ma laaj te yaakaar naa ci ci émission bi la bokk. waaw waaw moo tax ma ni xaaral ma tabarkalla. soxna Rokhaya Ndiaye. waaw Soxna Rokhaya soxna Awa Traoré macha allah dafa dañ ko jox Seydou Hadj Malick gis nga am na nettali nettali ndax léeg-léeg nga toog di wax ci kilifa loo xam ni tey jii ku la dajoon ci mbed ci mbed mi wax ko ci sa kilifa nga nga de kilifa. mën nga toog di wax ci moom di nettali ci moom loo xam ni ku la dajoon wax ko ci mbedd mi yow en tant que nit. nga jëflanteeg moom. dëgg la. Mm-hmm. maam Roqaya Njaay Mooro daf ko jox alal alal ji kat mooy li nga xamante ni bii moom la ko amee loon ci ginnaaw bi ñu ko koy denc maam Roqaya jël addiya ja jox Maodo dem jëndi ay téere yi ni ko dama bëgg nga ñaanal ma ma am doom yoo xamante ni bii dañuy mën a jàngale téere yii. moo doon ni ko waxuma la doom yu mën a jàngale téere yi waaye di nga am doom yu mën a taalif lu raw téere yi kon loolu volonté jigéen la kon jigéen guy dugg ci kër moom mooy volonté wu man diw laa fi jur te koo gis ci àdduna am na yaay ah yaayam na mu nekkee woon moom ni muy nekke kon bi mu duggee yàlla defal na ko mu am jikka kan la ñuy wax Serigne Babacar Sy tabaarakallaahu loolu moo doon yitte yi nga xamante ni ñoom maam Rokhaya Ndiaye ci gàttal noonu lañ doon nekk ak Seydou Hadji Malick maam ku ñu wax maam Sefeetu Ñang déggal góor googu moo jur Dabax Malick moo jur Seydou Hadji Mouhamadul Mansour moo jur Seydou Mouhamadul Habib maam Sefeetu Maodo dafa am ay gan hmm, Seydou Hadji Malick léppam ci yàlla la ko def yëngu daan na jàngale ba 10 heures 11 heures dépense amul ci kër gi mu ne may leen ma ma ñëw dugg dem lijjanti dépense joxe dépense këram ñu egg la jàng bés mu am ay gan maam Safiyatu amul lu mu xambe mu dem bu doon jamono tey ñu ne mu dajji chambre à coucher mhm. ñëw xamb chambre à coucher bi waaye bu mu yàkkee neex na ci la yàkkee ku ñu wax Dabax Malick Sey radiyallahu anhu ci la yàkkee ku ñu wax Seydou Hadj Mouhamadou Mansour ci la yàkkee ku ñu wax Seydou Hadj Mouhamadou Habib kon nga xam ne ñoom ñëpp seen wayjur yi dañoo liggéey ci kër Seydou Hadj Malick tabaarakallahu am na yeneen. waaw euh, yu alternatif euh, léegi comme yëpp yëpp yëpp jàll ci lien bi ma bëggoon nga ñëw rek mooy diggante taaleen yi ak siween yi. Mhm. ndax ñoom tarixa moo leen boole wala dañu am ay lien de parenté. tabarakallah ñoom tariqa boole na leen waaye am nañ ak bokk. Mhm. noonu ñëpp ay xaal lañ ñoo nga jóge si yumma ñii nga jógee ca bundu tabarakallah ñoo ñoo bokk seen menn ñoo bokk seen menn maam waaye Cheikh fuuti Foutiyou ak Maodo seen diggante. baatin bu kawe kawe la tabaarakallaahu mi ngi noonu xam naa ne bu ngeen laajee historien yi ñoom liñ la gën a mën a wax ci ci yenn yenn mu ne Maam Maodo ku ko indi Dakar Maam Maodo Seydul Xaaji Malick Si radiyallaahu anhu ku ko indi dakaar exactement tur bi jàpp ma ko ndax euh, mën na am loolu historien yi dañ ci gën a mën a yaatu mm-hmm. waaye li indi kër góor gi Jibril Gueye la daan nekk mm-hmm. góor gi Jibril Gueye ne ko ñoo nekkoon Tiwaawan waaye jàppatuma exactement Maodo kan moo ko indi Ndakaaru waaye li ko indi woon Dakar mooy Cap Vert dafa nekkoon dëkk boo xamante ni bii Maodo magi Cap Vert dañ ko teeloon bëgg bu fi ñëwee di jàngale di di di samp zawiyam bi jàngal taalibe yi di jëflanteeg ñoom ci lu bëree bari di leen delloo ci seen borom loolu moom ci liggéeyu Maodo la woon ci biir te zawiya bi ci Dakar moo ko jënd ak xaalisam ci xaalisam waaw waaw ci xaalisam jënd ak xaalisam xam nga maanaam amul benn yonent mm. wala benn sëriñ bu dul que danaan dunde danaan dunde liy jóge ci ñàkkam mm-hmm. Mm-hmm. waaw Maodo dafa wax ni mm-hmm. bi ñu demee ba jël nangu addiye mu nekk fonction ci diine ci la diine yàqu laqad jaalu rawmal hadiyati xirfatan laqad jalabu li diini kulla balaa yi macha allah mu ne bu ñu nee ba toog rek nangu déedéet moo amoon na ay tool tool yi amoon lépp da koy defaat ci biir taalibe yi tabaarakallaahu macha allah moo tax benn jamono ndeysaan mag ngi dañ ne ko si waaw tee ngaa toog ñu lay jàngaleel ñoom sëñ Babacar ñoom sëñ Alioune Guèye mu ne waa nan lay def kon doomu aadama yi li may jox kon moom ndekete loolu fonction moom la woon jàngale mën na cee layee li ko nit ñiy jox kon tabaarakallaahu addiye pour nga lekkal ko nit ki dafa am lu ngeen seq. tabaarakallaahu. ndax mën nañoo jàll ci ma waaw tabaarakallaahu <laughs> waaw kay. Seydul Xaaju Malik. radiyallaahu taala anhu. daf ci am daf ci am masala yoo xam ni. am na internet bu laajoon li li mu bind ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam waaw waaw am dafa am la laaj yoo xamante ni bi <laughs> historiens yi ñoo koy gën a jeeb man ci sama sama xam-xam ci mbind la yam hmm. ak moo doon nee na lii la lii la bindkat yi wax tabarakallah humilité commencé woon nga wax ci xilaas laa ci lañ jëm nii hmm. maanaam ci lu Maodo ñu wax ci Maodo hmm. wax naa la ci introduction bi ni Seydou Hadji Malick jaamu yàlla la woon nit yàlla la woon wax naa la loolu waaye mbindu ni Maodo xam nga xilaas moo gën a siiw. ci li Seydou Hadji Malick bind ci Seydina Muhammad waaye mag ñi bi leen laajee kan mooy Maodo maam Khalifa Niass dani day mooy góor ga nga xamante ni bii am nañ liñ doon sàkku mu tax ñu am ko mu ni parce que daje nañoo Maodo. kay nga kuy Maodo mu ne albaxrul xidam mooy géej gu xaayaan gi. wa man bihi tadan naasu mu ni man li ma jaaxal maam xalifa nit yàlla yi par kenn la ñuy defar waaye Maodo par contingent lay defar faw jan baada afwaa ji waa kuy Maodo mu ni imaamu naa mooy njiit nit yàlla yi maam xalifa ñasa ko wax de te du n'importe qui mm. wa habibu cheikh waalidina mu ni kooku day mooy xayri man lam yaxib amul kenn koo yaakaar wala nga nekk ci ginnaawam sa yaakaar tas àllaaxira waaye kooku du Seydou Hadj Malick mu ni ko waaw boo demee ci dëkk bëgg nga xam fan la Maodo nekk nooy def mu ni yura ala day dawi yu dikri yuqidu man xat naama fi loola mu ni boo duggee saint bi moo xam foo wàcc ci saint bi di nga dégg ñuy wasifa ayum riir riir moo xam ne zikkar tur yàlla la ñooñ ñan la mu ni booy laajtee ñooñu waa kër Seydou Hadj Malick la kon nga xam ne Maodo dundam lépp ci yàlla la nit yàlla yi mu nekk doon ku ci nekk dafa amoon ak yow relation yu rafet moo tax li nekk ci suñu diggante du du sëriñ si taalibe yi la. Mm-hmm. ñun ñoo tal maa la ëpp doole maa la kawe li may wax toujours yenn saa dangay gis ku dem fekk sëriñam génne ko ca néegam indi ko ci làmb ji. dëgg la bëgg a jël sa sëriñam ko ci làmb ji pour ñu bëre. kon loolu mooy lan mooy gënalante sëriñ maam Abdou Aziz dafa daan wax ni. boo joxee nit loxo mu jox la loxo mu ni laa ilaha illallah nga ni a ilaha illallah muhammadu la kuy sa sëriñ toccil sa loxo te xam seytaane ñëw na kon ñoom seen diggante jekkoon na rafet na waaye seydul xaaju malik ci biir mbindam moo tax dafa toog taalif benn téere bu ñu wax xilaasu zahab moo tax bi waa joxee jawharatul kamal ma ne kamal mooy xilaasu zahab mooy or décanté ñu laaj ni ndax téere bi téere la wala bibliothèque la ñu ni déedéet téere bi du téere du bibliothèque waaye instrument la instrument pour lan pour nu ñuy xamee wax ji jëm ci yonent bi li ci wér ka mifaalin wa waka bi ka mifaalin wa mifaalin wa mifaalatin min asulaasi soo ismama bihi omila loolu moo tax ñu tudde ko tame bi ñuy tamee li nga xam ni moo jëm ci yonent bi te wér moo do daat ni yaa raisal bahri moo doo osé allahu akbar xam nga tax mu osé xam fan la jëm xam nga ku yàlla di déey da ngay ñeme yaa raisal bahri yéen laa wax ki may dégg ak ki ma déggul ki ma fekke ki ma fekkewul yaa ngi xuus nin asdaafi bu nekkee xam yonent bi moo doon nee na jarul sori bu nekkee xam yonent bi moo doon nee na jarul génn dëkk bi moo doon ne bu nekkee xam yónent bi jarul xiif jarul mar jarul rafle sañseel ba rafet lekk ba suur toog ma wax la kan mooy rasulillah sallallahu alayhi wa sallam waaye li ma jaaxal oustaz dafa wax ni yaa xaaid al baxri yéen a may dégg xam arab xaasa bokk la xaada xaasa mooy nuur la dugg ci xaada mooy xuus na kuy xuus da ngay wagu kuy nuur da ngay summeeku la moo doon mu ni yow miy summeeku yow mi bëgg a dugg géej ba pare ni yow mii xuus bëgg a wuti wurus ñu jël téere bi këru sëriñ bu nekk senegal ñëw bu fa téere bi pour ñu xool Maodo ak wàccam ak tawaadu am ku nekk mu ni la téere bi lan la ci seen waa daara xam ñoom ñëpp xool ni aj maanaam téere bi amul lenn luñ ci wax zéro faute téere bi di dox di dox ba ñëwaat kër Seydul Xaaji Maalik moo doon téye téere bi jox ko Sëriñ Babacar Si Sëriñ Babacar téye ko xool ba yàgg mu ni man de am naa lu ma ci bëgg xool baay mu ko lan la mu ni danga ni yaa xaaidal baxri wuti te wurus ku koy wut ñu dindi ñu def yaa xaaisal ma jàngal borom adra mal hammu nee na yaa xoosul bi man talabal la ali wa man ramal wula shahara layali wa xuttu suyula wa ruttu suyula li jarri dhayli siba wal marah kon fala tahdabanna wala tashabanna bi cheikhin abanna bi maanan aganna wa dhanan tafah walaw litimahu ila shurbi rahi lama kana baaha fami bul manah baay yaa ma jàngal loolu Maodo ni kon nañ ko dindi def ko yaa ghaisal bahri yaa ghaisal bahri yow mi xuus lil asdaafi ngir xam wurusu maami rasulillahi. moo tax tubaab tubaab ne immergé ak émergé. waaw mhm. li ma jaaxal ba léegi man Souleymane ba ma koy mhm. woon téeréem bi di xilaasu loolu jaaxal na ma lool. kañ la Maodo tàmbale ak fan la tàmbale ci téere bi. xam nga. alhamdulilahi lu ëpp kuy wax li ngay déparé boo paree nga naan ma doon def jeex na suñu émission bi ah alhamdulilah jaar na si jàmm. waaye moo doon départ ne alhamdulilah xam nga lu tax. yàlla lamma araada allahu. xalqa bi ajlihim annahum laa yutiquuna xamdahu xaqiqata alxamdi fa alhamahum alhamda wa qaala alhamdulillahi yàlla bi mu dogoo pour amal nekkiteef yi xam na ne bu leen amalee dinañ ko jéem a sant duñ ko mën a sant yàlla ne i gis nga alhamdulillahi jooju ba ko yàlla waxee ruuxu Seydina Muhammad ruuxu Seydina Xaaji Malick jàpp ca lam ca jàpp alaaji Malick nee na connexion boobu tàqalikuwuma ak moom ba ma ñëw ci waawan moo tax muy xutba ni shahadata man lam yansa shahadatan xabliya maa ngi wax laa ilaha illa allah muhammadu rasulillah ndax man alaaji maa ni kat bi yàlla naan ala subi rabbikum ma naan balaa fàttewuma loolu maa ngi koy fàttaliku man lam yansa shahadatan xabliya <laughs> sa xutba ba sa xutba ba waaye mu ni fakkaana waxul wa kuntu waxul ma nekk waaye fakkaana ki doon laaj loolu nekk min jumlatil xaaidina min rabbihim almadiya moo doon dépend alhamdulilahi te neewul alhamdulil rabbi mm. neewul alhamdulil maliki neewul alhamdulil jalili neewul alhamdulil jamil mu ne alhamdulilahi te te te oustaz asan alhamdu ak almadoxu ñoo bokk ay xaraf hmm? alhamdu ak almadoxu madoxu mooy tagg waaye tagg ni bokkul sa géer gi nga seet si bëgg mu jox la ni nga koy tagge bokkul ak bu la joxee ba ngay dem ni nga koy tàggoo déedéet ah Maodo am lu alhamdu mooy sant gi ngay sant bi ñu la joxee ba pare. Mhm. almadoxu mooy li ngay wax waa ji pour mu jox la. alaaji maa yi loolu yëpp nag lillaahi. Mhm. te laahi moomu. Mhm. moom laahi xam xamdu ji. xamdu gi ki ko moom moom la fay laahi nekkal. merci d'avance. te kooku du nekk ci biti. te yàlla. tur yàlla bi nga xamante ni moom la xam xamdu gi moom. moom xam du gi. du Allahu. Allahu moo ko fa nekkal. xam nga boo demee turu yàlla yi seen bopp. bi fi yàlla nekkee bindagul lenn. Mhm. tur yàlla dañ fi nekk ay ministères yu amul fu ñu liggéeyee. bi tur yi nekkee comme ay ministères yu amul fu ñu liggéeyee. Mhm. dañ def délégation. bi ñu defee délégation porte parole bi xam nga kan la woon mooy rabbu. est que rabbu moo ñëw wax ak Allahu. Allahu moo wax ak tur bu mag bi ni ko aw jëdil xalqa ci la yàlla bindee ku muy bind ndax razaaku mooy kii wërsëgalate bu fi yàlla nekkee kese yàlla soxla wërsëg bi mm. il faut mu am ku bind ko soxla wërsëg bi mm. razaaku ne ko yàlla bindal kuy wërsëgu ndax nga jox ma mission ma dem yóbbul ko wërsëgam mm. moo tax bul bañ nit ko ba yaakaar ne mën nga koo xañ wërsëgam da ngay <laughs> la waaw yàlla bind na malaaka boo xamante ni bii avant mu lay bind bind na wërsëg bi nga war a am lan la war a doon malaaka boobu ci délégation bi rabbu àndaloon la bokk alaaji maa yi ni comme que bi rabbu ñëwee dossier bi allah la ko jox <laughs>

العالمين بين النفس والناس ودنا وصليا يا إلهي وجزيا أبا وعلى محمدا لخيت لكنه لم يزل يعفو مواسمه يرجو من الله فوت فنخل يا فرعون بناها الله أربع قالوا قلنا يكبا دبة وفنخل يا فرعون بناها الله أربع من خلوا قلنا يكبا فنخل يا فرعون بناها الله أربع من خلوا قلنا يكبا ca waqe rawan ngom ca baal dalfata dalfata dalfatun dafa neexul ne yaa fi rawul balaa shafiul ummati Cheikh Hadji Abdoul Aziz Sy Malick nee na akrim bi min sayyidil hamuli adal baraya walidil baturi ku sopp na baax Malick ne akrim bi min sayyidil mi'tari والشداد الحول يوم الفزع أكرمني من منقذ الرحيم أكرم بي من مرجع الكريم أكرم بي أكرم لي من مادني محمد لمن يا سيدي كل راعك وسالم أكرم بمن طاب على عبي بشر في علي أحمد نخبة المدر صلي

jabay si Malick ne yonti yàlla Muhammad asra bi ahmad rabbuna min makkatin akrim bi li yurihi min ayatihi faraw fil mala'il karim ajaiban wa mawaiban ma sha'a min afdalihi akrim man taba ala abi basar abi basar abi basar abi basar bi ali ahmad al-mukhbat al-mudar akrim man yusuf qad na'ala an-najat min به أحمد كنز البركات سلم على على سيدي الشفاعة يا رب jërëjëf Serigne Serigne ñëpp ñun daanu waaw réew mi yëpp kontaan. Mhm. ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu am mbégte daal. Mhm. Euh, ndokk bi mu dalee ci ñun ñi ko fekkee tey ci euh, télévision Futur Média ak yéen ñi nga xamee ni tëddagu leen. Mhm. Euh, espoir boobu nga xam ni sunu sang yi bàyyil nañu ko moom la ñu woy muy yar joogoog ngeen wax sànq c'est très important ñu ngi leen ci gërëm yàlla na sunu borom wéral baat yi. amiin waaw mais ah? xam nga nag yàlla daf ma daf ma daf ma baaxee moo tax nit yi bu yaboo ñu fonkaat bu baax télévision Futur Média ah. dañuy xëy jël seetaan di seetaan Oustaz Papane Seyda Fat Bintou Diop Assane Seck yenn saa yi sax télé bi télé bi daw ngeen di waxtaan nit ñi du ñu bàyyi xel ci li ngeen di wax ñun nag ñu am chance jege leen moo tax ku ci profité wul rek du baax ay école ngeen yuñ dul fay dara ay école publique ngeen fii ci Sénégal rawatina ñun ñi leen jege dama yendoog Oustaz Oustaz damaa xaritoog Oustaz Papane dama lay déglu donc sant yàlla bi leen ñu suñu borom baaxee mm-hmm. euh, ngeen ñuy jàngal ñuy gëstu Euh, jokkoo ak sunu sang euh, di euh, Serigne Habib Sy mu ngi ci mu ngi ci téléphone bi waaw sànq ba tey mu ngi ci téléphone bi mhm. dox naa leen ndigal ba tàyyi pour ñu jël ko yéen la <laughs> yéen la de waaw sëñ bi depuis sànq mu ngi ci euh, téléphone bi <laughs> ngañ la rek waaw <laughs> waaw <laughs> sëñ bi sànq man la woo maa ni ko noonu wallaay sànq ba tey sànq ba tey mu ngi ci mu ngi ci mu ngi ci téléphone bi donc nañu jéem rek. Euh, euh, jéemaat jokkoo ak moom bu ko defee ñu mën a àggali. laataa ñuy jeexal li ñu wax sànq rek la ñuy waxaat waxtaane Maodo. xajul ci benn émission. di di di di njaboot gi yëpp. Mhm. bëggoon nañu itam ñu ñëw tuuti rek tënk ci diggante Bamba ak Maodo l'histoire s'est tellement répétée ci sunu sang yi am nañu ay images yoo xamee ni mën na ko illustrer ngir ngir feesal bokkoo gi ak bennoo gi waaye bu au-delà de yonent bi leen boole ñoom dañu bokk dañu bokk gis nga euh, diggante Serigne Bassirou Mbacké mii ak Serigne Mansour si mhm. photo yi demaat encore ñu gisaat mhm. euh, euh, taxawaayu sang yi ci seen biir xoolal lii. ku ci nekk sa doom mu nekk moom. Oh. Mm-hmm. bi de. na Serigne bi ñëw ba noppi. fii dawlatin te warul wallaay koo ko xamul. xanaa doo xaarloo sëñ Habib de. waaw kay sang bi ñu ngi nuyu. waaye dama doon woote xool da damay bañ a delluwaat. ci waaw kay waaw kay Souleymane waaw. dama ci doon bëgg indi ay éclaircissement rek. demal bakk rek dara maan demal. waaw ñu ngi lay déglu si Malick. asalaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ Habib wa rahmatullah. maa ngi maa ngi maa ngi nuyu plateau bi yépp ñu ngi lay fay si. di nuyu Souleymane bu baax di ko encouragé fa tabarakallahu ahsanul xaaliqin jërëjëf si. di nuyu di nuyu Oustaz Thiam. jërëjëf si di nuyu njabootu maam Moussa Ale yooyu fi teew yëpp. te ñoom yëpp kenn ku ci nekk. yaa ngi taxawal tey Alhaji Abdoul Aziz Mbaye Pape Daw Góor. Alhaji Mansour. ak xadara almalikiya yëpp yal na leen yàlla fay. amiin si amiin amiin Souleymane ñu ngi lay ndokkeel bu baax a baax a baax a baax a baax a baax. ndax yéen a ngi waxtaane ku rëy. yéen a ngi waxtaane Sénégal. yéen a ngi waxtaane adduna. muy Cheikh Seydil Hadji Malick radiyallahu taala anhu xam ngeen ni Mame Rawane Ngom ca Paal. Hmm. Alhaji Malick Sarr ca Gudi. Mm-hmm. alxaaji Medoune Mbaye Sarr ca Njàmbur mm-hmm. ah maam Baba Jong ca Podor mm-hmm. alxaaji Abdullahi Saw ca Dagana maam Mëgëy Njare ca Wàqi alxaaji Momar mu Kebe maam Momar Xujje Si waaw ñu ngi mag ñooñu ñëpp ak ña ca des. te li ma gunu lu Cheikh Seydi El Hadji jur. te li ma gunu lu Cheikh Seydi El Hadji jur. sànq am na ko laaj question bu am solo. ci diggante Cheikh Seydi El Hadji ci biir plateau. ci ministère de l'intérieur. li ñuy wax nag mënuñu ko wax te waxuñu fu ñu ko jëlee ndax honnêteté intellectuelle. te xam-xam li koy dëgëral mooy référence ak mhm. argumentation mhm. nangu nañu ci sunu làmmiñu bàyyi sëñ Abdoul Aziz Sy Al Amin ci waxtaanam fii ci Tiwaawan mhm. mu ne ministère de l'intérieur dafa am lu fa xew te la fa xew ni Seydul Xaaji Malick sell sell maanaam xam nga jaamu yàlla ñëpp danañ ko def ci képp ku dugg ci daahiratul iman waaye la yàlla bëgg ca jaamu ga mooy nga defal ko ko na ko bëgg te bañ ko defee ni nga ko bëggee al ixlaasu maa uridu bihi llahu fi ayi amalin kaana mu am xew-xew bu am foofa nag suñu papa Abdoul Aziz Al nee na góor gu ñuy wax góor gi Abdoulahi Ndour moom moo dëkkoon ci ministère de l'intérieur nekk tey doon njaatige Cheikh Seydou Hadji Malick ci biir plateau bu Maodo yegsee dakaar foofu lay wàcc te Maodo doon gan goo xam ni kenn ku nekk taamu woon nga ko ci sa ëtt waaye ci moom la ko yàlla dogaloon ñu dem ba jëmmi jamono Maodo nag bu fa nekkee mën na wër penc ndakaaru yi jullee fu nekk gee waxtaan ak mbooloo mi delluwaat fa ba dafa dagg mhm, yàlla dogal di góor faatoo mu fekk Cheikh Seydil Hadji Malick fii ci fii sëriñ Abdoul Aziz Al Amin radiallahu anhu wa nafaana bi barakatihi nee na bi ñu tàggee Cheikh Seydul Hadji Malick góor gi Abdoulahi Ndour mi nga xam moo dëkkoon foofu ci ministère de l' intérieur ñu xamal ko dëj bi nee mu nee na mu seet mbooloo mu takku tey tey ñoom te mbooloo ma it di Maodo mu teg ak lëf ci seen loxo pour ñu jaale jël ko njaatigeem boobu faatu ca Dakar bi mag ñi génnee waxtaan ne yëguñu ci góor gi ngànt te ku toll nii bu génnee àdduna xam nañ ni góor gi Abdullahi Ndour du kenn ci Maodo waaye lenn la ci moom mhm. du kenn ci Maodo waaye lenn la ci moom bi ñu génnee bokk waxtaan mel ni dañu delluwaat ci biir gisewaat ak Cheikh Al Hadj Malick Maodo ne leen dafa mel na dafa am lu xew ñu ne ko waaw gay góor gi dafa am lu xew kay mu ne leen lan la ñu ne ko ah ku toll ni kat bu génnee àdduna tey lenn ci yow boo jógul jaale ji ko xelum wolof mën na koo bañ a rafetlu Cheikh Al Hadj Malick ne leen fan ngeen sukkandiku pour ma jaale ji góor gi Abdoulahi Ndour mu mel na wax ji dañ ko teg ci sentiment Maodo na leen ah man nag dama am ñaari kilifa te kilifa yooyu nangu nañu ci làmmiñu Serigne Babacar Mansour mu ni mos na laaj alxaaji Cerno Saïdu Nuuru ne ko Cheikh ne ko ndax nit mën na dund te du am kilifa alxaaji Cerno Saïdu Nuuru taar ne ko déedéet nit mënul dund te amul kilifa mu ni ko Cheikh Seydul Xaaji Maalik kan moo doon kilifaam mu ni ko ñaari kilifa la amoon ak benn sàmm benn kilifa bu jëkk bi mooy sharia moo ko féete ci ci ndey jooram kilifa ñaareel bi mooy sunna moo ko féete ci wàllu càmmooñam di ko contrôler sàmm bi mu amoon nag mooy ngor mu mel ne Cheikh Seydil Hadji daf leen xamal ni ah man de laaj naa sharia sharia ne ma Maodo góor gi Abdullahi Ndour faatu na te jigéen bi mu bàyyi ci ëttam daganu la kon xaraam na ci yoon nga bokk moom benn ëtt seeni hmm. noyyi di fa jaxasoo hmm. Hmm. seeni noyyi di jaxasoo ci benn kër moo doon leen bi ci defi consulté naa ngor ngor xamal man ne ma Maodo as góor bu dal fu ko ñëpp xamee mu xëy di dal bi te dem Dakar dellu si yombul kon dem leen ngeen jaale jil ma sëriñ Abdou nee na ba ñu yeggee ba jaaleel ko ba noppi njabootu góor gi Abdoulahi Ndour delloo Maodo Njaal yóbbante ko mag ñi tofal ci ak yóbbante yóbbante ba mooy lan mooy bëgg nañu bu sunu yaay summee ñu mo ñu jël ko jox ko Cheikh Seydul Haaji Malick ngir seen wëllëre bàyyi ak Maodo bi mag ñi dellusee yàlla dogal na ba ñu delloo njaal Maodo ba noppi yegguñu ci ak ci yóbbante boobu Cheikh Seydou Hadji Malick moo ko tudd mm-hmm. mu ne la lool de war naa mën a nekk mm-hmm. ndax mag laa mag la te deretam jeex na sama deret jeex na ma ubbee ko bunt bi mm-hmm. sëñ Abdou nee na looloy sababu Cheikh Seydil Hadji Malick bu dencaatul woon soxna ci xool jugaatam ñëw Dakar du yomb muy benn li ci des Cheikh Seydi El Hadji Mouhamadul Mansour radiallahu anhu doomu Cheikh Seydi El Hadji Malick mhm. dafa yaxal ci téere mhm. ci dundinu bàyyam ci biir néeg mhm. ndax nit mën na jëm ci biti jommal ñëpp waaye bu lëkku waaye bu duggee ci ruq soppeeku Cheikh Alhaji Malick dund biteem mooy dund biiram mm-hmm. Alhaji Mansour na dund naag sama bay vingt deux ans yar na ma ñaar fukki at ak ñaar xam ne amul benn guddi wala denn bëccëg bu ma tàqalikook moom mm-hmm. waaye maa ngi leen di seedeel ni wama alimtu mm-hmm. fii ma xabartu siwaa may ni min wadqi ma in kaana yafqaahu dund naag sama baay vingt deux ans mosuma gis fu ndox fu dul ñaari yoon te ndox ma ndoxum taw la papa alxaaji mbay di jur abdul aziz mbay bu TFM bii mm-hmm. moo leeral bind boobu mm-hmm. moo leeral bind boobu ca ndakaaru mu ni benn bu jëkk bi taw la boo xam nawet la ci biir Tiwaawan Cheikh Alxaaji Malick fatu ci biir dégg luy riir ci biti mm-hmm. mu ni Mouhamadul Mansour loolu di riir ci biti lan la mu génn yër ni ko ne ko bàyyi dafay taw mu ni ko baal ma asal ma ci ndox mu ñuul moomu ma barkeelu ci ñu dem ba ca déwén sa Seydul Xaaji Maalik ñëw Dakar dara kër góor gi Abdullahi Nuur nawet fekk ko fa nee na mu ni alxaaji Mansour dafa mel na dafay taw mu ni ko waawaaw bàyyi mu ni ko baal ma asal ma ci ndox mi ñuul moom ma barkeelu ci bàyyi alxaaji mbay nee na ba Maodo naanee ba noppi nee na ko doom bu ma bañul woon di def ngeen naan ma lu tax danaa la wax ni la ba ma gëjee naan ndox mu ñuul kenn ci yéen ganewu ci àdduna est mm-hmm. ca taw boobu nag la Seydul Xaaji Malick ca nawet booba la jógee kër góor gi Abdoulahi mu di ci zawiya bi pour daaneel. Mhm. ñuy dox quatre heures demi du matin. Mhm. mu am ay soldats suy màcc ci biir ndox mi. Mhm. Maodo bokkoon na ci aadam daawul gestu. mu ni ko Mansour ñooñu di suñu gannaaw ñan lañu. mu ni ko soldaaru tubaab si la. mu ni ko ñoom lu ñu bëgg ba tax ñu jóg waxtu wi mu nu ko xanaa àdduna bu jag. mu ni ko ndax ku bëgg adduna ak bu jag. te doo ñii ndax ndax war ngaa nelaw. waaw wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf si jërëjëf si Malick Serigne Habib si euh, ñu ngi koy euh, gërëm bu baax. Euh, di ñaan itam yàlla bàyyi ko fi. ñu ñuy ñuy ndokkeel suñu sang yëpp. sama papa Maodo itam. sëñ Maodo si. moom it yàlla na fi yàgg te wér. amiin juum ak njabootam yëpp. ñu ngi ñu ñun daal kontaan nañu. bu doon suñu sago dañuy fanaan ak yow ci tele bi ba ba ëllëg. waaye dimension dimension dimension Seydi Hadji Malick moo moo doy waar. waaw moo doy waar lool sëñ Souleymane. waaw balaa balaa maanaam Pape Cheikh. waaw dama am benn seede rek bu may def ci sëriñ Habib. sëriñ Habib si yàlla na fi yàgg. te wér. Eh, nit ku baax la. Hmm, oyof. loolu moom la ci laa bëggoon ñëw. Hmm, hmm. dañoo ñëw gàmmu Tiwaawoon ñu war ñu war gisanteeg Serigne Maodo. pour ñu war ko am laaj yuñ ko laaj moom mii keroog moo takk ndiggam. sol tërëy ànd ak ñun ba yóbbuñu ci Serigne Maodo. yamuñu foofu mu yóbbu ñu ci li gën a jafe. mooy mu wane la ñu góor gi Basirou ñan ñu am ak moom waxtaan woo xamante ni bii ñun rek ñoo ko am Sénégal. humilité humilité. humilité gi ci yàlla xam na loolu. donc moo tax bi ñu bi muy woote sànq mënu ma ko woon jël ci téléphone bi. parce dirigé wu ma émission bi mënu ma ko woon jël mais maa ngi koy jë wax euh, Souleymane ma ne ko ah, kii de Serigne Habib la mu ne ma mu am beneen pex bu mu dugg moo taxit moo taxit moo dugg na te kontaan nañ ci xanaa ma bëggoon ci profité rek laataa ngay ngay commenté euh, ni euh, festival salaam itam bu leen fàtte ni yu dàq yi lañu fay amal ci programme yi bu fekkee noppi ngeen ci ginnaaw ñu won téléspectateurs yi rek agenda bi ñu noté ko bu ko defee ëllëg incha allah ci lañu koy tàmbali di vendredi cinq mais euh, donc suba ouverture bi euh, ñu ngi koy amal ca salle unité africaine euh, bu CICES samedi ginnaaw ëllëg incha allah samedi 26 mai dinañu nekk fi nga xam ne ni mooy grand théâtre toujours pour festival salam bi dimanche 27 mai ñoo ngi terrain ACAPES bu Parcelles Assainies lundi 28 mai ñoo ngi esplanade bu stade Caroline fay bu Mbour ci décentralisation festival salam mardi 29 mai dina am plateau bu mag bu ñuy présenter fii ci télévision Futurs Futurs Médias euh, muy plateau mag ñi ñu tuddee ko ci tubaab plateau des vétérans ci euh, télé bi donc loolu mardi la incha allah euh, nar a tombé ak 29 mai àllarba bi festival Salam mu ngi théâtre national Daniel Sorano jeudi 31 mai dina amaat beneen panel waxtaan ak ay ci télévision Futurs Médias ba tey ci plateau bu mag ñu fas yéene ko amal ak borom xam-xam yooyu le clôture bi nag incha allah vendredi 1er juin la ca boulevard général de Gaulle ren nag. Euh, pays invité bi euh, pays hôte bi euh, mooy Turquie dañu bëggoon rek ngeen bàyyi ci xel te xam ni suba le programme yi tàmbali ca fi nga xam ni mooy salle unité africaine bu CICES sëñ Souleymane. tabarakallah jërëjëf xanaa di ndokkeel sëñ Mouhamadul Habib bi dugg. Mhm. xamante ni moom tabarakallahu benn yitte la am ci kër maamam mooy nekk fa taalibe. Mhm. te loolu mooy Seydou Hadj Malick. Mhm. Seydou Hadj Malick ci tawaadu la dund. ci la waa këram yëpp tënku macha allah. Mhm. yàlla yàlla fay ko. mu indi lu am solo. Mhm. gis nga bayit bi mu indi léegi ni maam Maodo ñaari yoon lañ ko mus a gis mu naan ndox mu ñuul lu mel ni kom ndoxu robinet te ndoxu robinet ndoxu taw la fala maam Alaaji Mansour di jàngale ni maam Maodo nit ku tuuti la woon naxiilu jismin Maodo toog na ba yàgg mu def nii loxoom dugal loxoom ci biir aj ko ba mu yàgg. daal ni ah ngalla Maodo dem wuy ji yàlla te yóbbaale wu fa suux tawilul baay alaaji Mansuur mu nii bàyyam Seydou Xaaji Maalik ku jotoon ay cër la macha allah. est-ce que. moo atadilun waaye ku digg doomoon la waaye wajjah wariyatun sawtu mu ni bu addoo jaww ji ñëpp dañ naan tekk déglu Seydou Xaaji Maalik maam Alfaahi ma yoro mos na am benn gan fekk Maodo ngi nekk ndaw ci këram maam Maodo di jàng alquran. gan gi toog ba yàgg mu ni waaw maam Alpha kooku di jàng kan la mu ne ko kooku day sama jarbaat la mu ni ko innahu yaqra'u qiraa'ata ahli sama allahu akbar mu ni ko kooku sa jarbaat li muy tuut tuut tànk mi ngi jàng njàng nu ñooñ asamaan maam alaaji Mansour foofu lay waxee ni Seydou Hadji Malick ci comportement bi ma xam ci moom musta toog ci mbooloo tàllal tànkam mm-hmm. yar kolo <laughs> ñu ne ko xanaa mbooloo kese mu ni fii xalwatin hakada mu ni bu nekkee ci biir itam danaan bank ay tànkam mu ni ko lu tax mu ni min xaw fi mawlaahu ngir ragal yàlla kon ndekete ragal yàlla xam nga dafa am benn baat benn xadis ida lam tastaxyi fas naa ma waaw loolu mooy boo gëmul yàlla dafa lu la neex waaw xam nga kersa ku gëm yàlla koy gën a ëppale moo tax Seydina Muhammad moo gën a gëm yàlla ñëpp moo gën a bari kersa ñëpp yëguloo ne xale bu jigéen mu mus a génn seen kër kersa gi muy am Seydina Muhammad ak ko ëppale Maodo mu ni jamul xayaa yi fa mal adraau tudrikuhu fii qidriha wa umurul badri fi tabarkalla kon nga dégg ni Maodo li tax li tax ma indi ma indi aspect xilaas bi ma doon ubbi ci alhamdulilahi dil ijaadi gis nga formule bi ñu koy firee alhamdu sant lillahi ñeel na yàlla siiw na ci àdduna waaye pour dama la waxoon bi may tàmbalee ni que ni Maodo mbindam nekkul sujet verbe complément rek. déedéet loolu moo tax moo tax tafsir bi. Uh-huh. xaw a mel ni luy compliqué. parce que li ñuy gën njëkk gënoon miin. Uh-huh. yonent bi Seydou Hadji Malick jaar na fi ak moom. Uh-huh. mais dafa am loo xamante ni mi ngi nekk ci diggante baat yi. tabaarakallaahu dafa am ñetti salaatu ala nabi Pape Cheikh. bu ànd ak jalaaliya ak bu ànd ak jamaaliya am boo xamante ne ay geste la. salaatu ala nabi li tax mu doy waar. yëguloo ni Pape Cheikh aljanna pareegul aljanna noppeegul surface bi ñu ko war a def surface bi mu nekk pareegul matagul xamul tax amul kenn ku julli ci yonent bi li ma lay wax référence boo demee xallu ak fa li qurra i jawharatul kamal dem ko fekk ñu bind ko noir sur blanc mu ni amul kenn kuy julli ci yonent bi ndax rete aljanna ngi màgg bu aljana màggee dañ naan kii wax lii kan la am na xet gu neex buy génn ci sa gémmiñ bët asamaanu juróom-ñaar ñu ne manil qaa'ilu li haadha al qawl manil musalli kan moo julli ci yonent bi julli bi ñu ne kii julli ci yonent bi aljana da day yokk fa nga xamante ni moo fa war a dëkk allahu akbar kon salaatu ala nabi noonu la noonu la amee doole bi ñu ubbi sànq am na ku ma dégg boo gisee ñu julli ci rasulillah am na malaaka boo xamante ni bii. dafa am bureau. saa neex ma doon expliqué loolu. ah tabarkalla. ah ko doon wax. dafa am malaaka boo xamante ni daa am bureau ci ci biir xabru sayyidina Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. jëmm ja leer la. bindukaay ba leer la. këyit ga leer la. Mhm. boo jullee ci yonent bi. Seydina Muhammad daf lay delloo nuyoo malaaka boobu moom mooy naan ko Seydina Muhammad yaa zeyna man waafal qiyaama inna zeyda bna amrin salla bika anifan diw doomu diw julli na ci yow léegi Seydina Muhammad ñu ko bindal turam ndeyam ak baayam ñoo ko fekke woon lu tax Seydina Muhammad mu ni da koy bind ci benn téere buy yow man xiyaam yore dossier ba naan ayna alladina kaanu fi dunyaahum yusalluuna alayya fa taalaw fa inni atashafau lakum amaama rabbikum ana ñu doon julli ci man ana ñu doon julli ci man ñëw leen bu ñu demee ci kanamu yàlla ma ramul leen ci julli bi ngeen doon julli seen. allahumma salli ala sayyidina muhammad. ya Pape Cheikh. yàlla du jàng alxuraan yàlla du jàng alxuraan. yàlla du weer na. waaye yàlla julli na ci yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam. ah te bi julli ci yonent bi jotee moom moo njëkk a def. ni ñu def leen. dëgg la naa la wax benn affaire. benn digle bu yàlla mos a digle te kenn defu ko ba léegi. mooy. digle bu yàlla digle. muy fardan ci yow. wala maratan fil omri te kenn defu ko. muy ba léegi yàlla diggu ci kenn ay duma. ah oustaz. waaw ah, waaw am na waaw kay. xam nga ban la. Hmm. mooy salaatu ala nabi. xam nga sallallahu alayhi wa sallam. jumlatul xabar yàlla. salla julli na. mën na nekk dëgg wala mën na bañ a nekk dëgg. Hmm. waaye allahumma salli insha yàlla. ah wa qaabilun li sidqi alxabaru wa gayru insha fi ma saharu waaye sallallahu alayhi wa sallam yàlla ni julli leen ñu ne yàlla mënuñu defal ñu allahumma salli ala sayyidina muhammad mooy allahumma salli yàlla li ñu sant mënuñu ko ci sa soppe bi defal ñu ko yow mi ko mën ci moom. <laughs> est-ce que waaw moo tax taalibi ci jaan yi. Eh. di weer di ci faatixi li ma oliqa. xatta qadrihi wa miqdaari la azim. waaw ma wax la benn affaire. gis nga ma di insister ci xaqa xadri yi. waaw kay xaqa xadri yi. xam nga xam nga bi xadri yi la dekk. saa sama papa insister ma ne ko ah damay dem. Cheikh Pape bi xadri yi la dekk xaqa xadri yi su may ñaanal day insister. Pape xaqa ma ne ko eh, arrêté damay dem. Pape xoolal bi xadri yi la dekk. wa bi xadrika ladayhi salaatan tuarrifuna biha iya wallahi maanaam almarkadu aqsa lahu laha min rabbiha fi lqadri fi ltaqdiri fi lmiqdaari wala almarkadu aqsa lahu min rabbihi fi lqadri fi ltaqdiri fi lmiqdaari maanaam yàlla ni mu toll ci yàlla sidna Muhammad ni mu toll ci yàlla yàllaa ko xam ñu ni kon yàlla ñu ngi ñaan yàlla nga julliñ ci yonent bi julli gu tolloog Seydina Muhammad mënuñu ko yàllaa ko mën yàlla mu ni mënu leen ko sant ngeen ma ko ma defal leen ko foofu rek la nit jullit ñemee sant yàlla mais xaka xadri yi xanaa dafa am lu mu bokk ak laylatul xadri waaw xam nga laylatul laylatul xadri mooy ni de day destiné xaqa xadri yi nag mooy jëmmi jëmmi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tabarkallah inna allaha wa malaikatahu waaw xam nga malaayika xam nga avion espace la. micro bi sax jëloo ko. malaan googu ñu ni kenn du ko def kenn du ko def ci avion de. xajul dafa am dafa am loo xam ci avion. dafa am loo xam ni ko war a defee. ca yàlla dafa loo xam ni. julli ci yonent bi ñu koy def. sallallahu alayhi wa moo tax salaatul fatiha doy waar. moo tax wasifa doy waar. dafa am gis nga nekkul n'importe toog néeg bu xat. Mhm. ñeme woo faa toog di wasifa. déedéet da ngay wut ju yaatu. bu ko defee boo dee julli nga julli ci yonent bi dafa am distance boo xam ne moo war a nekk ci ñiy def am espace bu ñu war a def kon bu ñu toogee di julli ci yonent bi kenn mënu jawarul kamaal la avion attanul loo oto attanu. attanu ah oto attanu ko waaw Jawratul Kamal waaw. waaw ah, kay moo tax boo fi nekkee doo ko def ci oto da koy wote. oto mbot sax boo nekkee ci avion doo ko def boo nekkee ci oto doo ko def da ngay def lan ñaar fukki salaatul faatihi. Mm. loolu ci beneen domaine lay dugg. waaye maa ngi delluwaat ci ñetti salaatu ala nabi ci Maodo. Mm-hmm. maanaam maa ngi ci Maodo ba léegi. Mm-hmm. ci njàngaleem. ñetti salaatu ala nabi dama la benn bi jalaaliya la. Mm-hmm. benn bi jamaaliya la. benn bi ay geste la. Maodo def ko ci benn benn bayit la ko def. ñetti mën nga wër a wër a wër ba tàyyi doo ko gis ah. moo war a def benn xolal xam nga ban moo ànd ak jamaali jalaaliya ma raada raad mm-hmm. gis nga malaayka bi sànni dënnu mm-hmm. moo gën a tuuti ci malaayka yi xam nga nu mu mm. que dënnu tonnerre malaayka bi koy la toll ah bon ma raada raad xam nga boobu may la bi ànd ak jalaaliya mm-hmm. bi ànd ak jamaaliya xam nga mooy ban mooy wal warqa aw talxibu min hadiliha pitaxu Pool. bu nekkee bu faja boo dëkkee ci àll bi ñun kaw kaw dañ ko xam. nga dem am kurkutug kurkutug kurkutug. ah kurkutug boobu salaatu ala nabi la. moo tax mu ne war a xaa picc ma ma ngay def salaatu ala nabi ba ko yàlla sant mu koy jaamu yàlla moo tax maa ngi ñaan nga julli ci yonent bi. mu des ban bi nga xamante ni bii ay geste la. ak ay mooy moo ni wa jaraadama on minal xalam yi fii ak ñi ngi bind borom bindkat yi ba bind xewatul bëreetul. fii ak borom clavier mi ngi tiim tactile am di takk. tak tak maa ngi julli ci yonent bi. waaw dañuy dañuy tàggoo léegi émission bi il faut ñu def ko tome 1 tome 2. waaw il faut ñu def ko tome tome 1 tome 2. waaw ndax 3 heures du matin jot na. waaw 3 heures jot na il faut ñu def ko tome 1 tome 2 tome 3 ba tome 10 incha allah. dama bëggoon incha allah soobee yàlla. ngeen baal ma rek xam naa ni temps bi. li ci des dootul bëreeti. waaw jeex na sax. tabaarakallah. <laughs> trois heures jot na waaw. tabaarakallah waaye. macha allah gis nga gis nga gis nga ñeenti ñi wër Maodo. Mm-hmm. yonent bi dafa amoon. ñeenti saaba yoo xamante ni c'est les fidèles compagnons. Mm-hmm. Maodo am ñeenti ñoo xamante ni bii moom moo leen defaral boppam ñu nekk ay njabootam. Mm-hmm. Maodo mu ni Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ñi àndoon ak ñoom Ababacar Omar Alioune Ousmane an nujuumu ñooy biddiw yi li muxtadin ñeen ki bëgg a roy bi sama ci Seydina Muhammad mm-hmm. waaye Maodo teg fa bayit ba bayit ba toppaat ko dugg kër Maodo Maodo fa bàyyi way bi mm-hmm. way wi topp Maodo ba kër Maodo waxum sëñ Babacar Si mm-hmm. waxum Dabakh Malick waxum Alaaji Mansour waxum Seydi Mouhamadul Habib borom tampon ba an nujuumu ñooy biddiw ya li muxtadin ñeel ku bëgg a roy bi sama ci Alaaji Malick kuy alaaji maari mu ne badru duja bi ñu demee ba Sénégal lëndëm tubaab bi nekk fatt nit ñi mooro bi mu egsee inji laa udalaam dafa mel ni projecteur ñu taal ci lëndëm làmp lu mu gën a lëndëm mu gën a leer lu leer la loolu moo tax Maodo lu jamono gën a critique gën a doy waar laqad rufi at raayaatu uslubi cheikhina foo toll ok mu ngoog trois heures du matin jot na xam naa euh, euh, sëñ Souleymane li ma wax sànq rek ni euh, dinañu defaat yeneen jotaay mhm. ngir àggali ko mu doon suite ñuy gërëm sunu xarit yëpp bëggoon nañu àggali nag ak yéen waaye dañ leen dañ leen di bàyyi nag yéen it ngeen xëdd ndax ñu nit bëgg nañoo dem trois heures du matin jot na ñu lay gërëm bu baax di la di la sant yan kàddu ngay tëjee waxtaan bi tey. ah kàddu gi day. Mhm. mooy ñun ñëpp. ndax ma fi dañuy wax ni lu duuf ci nag bi du xaj ci cin li. xajandoowul xajandoowul ci cin li. macha allah xanaa kàddu gi ñuy tëjee. Mhm. mooy di ndokkeel waa Sénégal. Mhm. di ndokkeel adduna. waaye di nuyu di ziyaara fi waroon tàmbalee mooy alxalifa. Seydi Aboubacar si Seydi Mouhamadou Mansour si. nga xam ni. benn yitte la Moussa am kër maamam mooy nekk fa taalibe wax naa ko ci sama wax yu bari ma ni bu nekkoon xilaafa day am élection sëñ Babacar Mouhamadul Mansour du nekk xalifa ñu mënoo tax man leen parce que du déposer candidature lu mu bëgg nekk kaw niya tilmidan li hada al qutbi xaqiqi maam Abdou dafa waxoon ni maa ngi ñaan yàlla yàlla nanga ma def ma nekk taalibe Cheikh Ahmad Tidiane yi waaye moom sëñ Babacar Mansour ñaanam mooy lan kaw niya nekkam kaw nuhu nekkam tilmis nekk taalibe kër Seydul Xaaji Malik njabootu Maodo yëpp Cheikh Seydi Aboubacar Mansour ñëpp ay sëriñam la leen jàppe ñu ngi koy ndokkeel bu baax a baax di ndokkeel itam soxna Ayda Si di ndokkeel sëriñ Maodo Si di ndokkeel sama sëriñ sëriñ Babacar Si borom laa fa ba ca Tiwaawan naa ba anil kiraami tabaarakallaahu ki wuutu mag ñi mm-hmm. tabaarakallaahu moom ñu ngi koy ndokkeel baax a baax ñun ay almuda lañu rek ay taalibe la ñuy ndaw ñu nekk foofu mhm. ci daara jay góorgóorlu mhm. waaye ci seen digal incha allah mhm. ci lañ fi teewe woon waaye di ndokkeel itam wax dëgg yàlla waa TFM ndax jamono day toll foo xam ni il faut ni ñi joxaat leen seen repère mm. Sénégal demoon nañ ba léegi xale booy tudd bala muy kontaan tudd la référence tubaab te am nañ mag ñoo xamante ni ñoo gën ñooñu fuuf doy nañu référence doy nañ sëkk référence mm-hmm, mm-hmm. fi ñuy jaar ba baax fi ñuy jaar ba baaxal ñu ba mm-hmm. baaxal njaboot yi jaaroon seen ginnaaw buñ fa jaaree am mbaax gu toll noonu tabaarakallaahu ñu dellu tënk ñun ñëpp ci laa ilaha illa allah gis nga tiijaan bi bul nekkub tijaan mukk wala nga nekkub murit mukk wala nga nekk xaadir mukk ba gàmmu Tiwaawan jot nga ni kenn du dem Tiwaawan nimsaat lañ war a dem ba tax nga tëdd ci tali bii ci kaw sa kaw la oto dem Tiwaawan loolu yàlla moom moo koy def kon li am solo mooy laa ilaha laa bi ñu bokk li am solo mooy suñu Sénégal bi ñu bokk nañu bëggante ngir yàlla te maytu yenn wax yi am na loo xam ne dafay yàq da toog xam li nga xam nit fekk la fa ne alaaji di ma ko jullee <clears throat> Mamour Khoudia Sy bi nga xamante ni moo jur Serigne Moustapha Sy Góora Sy ñu dénkoon ko soxna Nafis si moom moo jàngal sëñ Babacar alquran bi Seydul Xaaji Maalik génne àdduna kooku moo ko jullee Seydul Xaaji Maalik si ci benn ginnaaw la xatoon bootu na ca muy Seyduna Ahmad Tijaani ñoom nga bëgg leen nga bañ leen du woon problème si ñoom kon ku ci nekk na nga góorgóorlu fa nga bokk lañ la fa sant nga jàpp ci gis nga tarixa lu ci bëri du pour du dugg aljanna bu nekkee ku jëlul tarixa dugg aljana ñi jëlul tarixa ñoo ñu jël tarixa kon tarixa pour lan la yàlla dina fekk toog comme dina toog àllaaxira comme ni nga ko mën a misaale ci suufu suufu aras ba muy toog mel dafa am baaful bu fa nekk xam nga lu baaful bi di wax mhm. naan yaa yaa li liman anti wa maa fiiki liman mhm. yow aljanna pour kan nga li nga fi nekk pour ñan la mhm. xam nga lu tontu nahnu li ahli la ilaha illa allah ak li fi nekk lépp xam nga ko ko moom mooy kuy wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah kon lu mu yàgg-yàgg lu mu gudd gudd fa lu mu sori sori fa yàlla ci yàlla la ñuy daje wa anna ila rabbika al muntaha loolu la mag ñëpp d'accord loolu la ñëpp xamoon moo tax ñu ko doon dund yàlla ñu yàlla defal jàmm maa ngi nuyu nag sama wajur soxna ña nga si ca Tiwaawan di ko ziar bëree bëri ñaan yàlla bàyyi ko fi suñu kanam tabarakallah bi jaay rasulillah yi muy bëggee jotaay bi di jege ñi bëggee ñi ci jotaay bi yëpp tabarakallah di suñu yaay ya ca soxna yi sëriñ bi yeeg tabarakallahu mm-hmm. di nuyu ñëpp tabarakallahu di leen ziar mm-hmm. ñaan yàlla yàlla nañu yàlla defal tawfiq bi jaay rasulillah lépp lu ñu fi jot daal ci ay message jëm ci yow yàlla na ko suñu borom def yiw amiin amiin eh, ci barkeb Sidi Hadj Malick ñun dey kontaan nañu lool ci ci yow sëñ Souleymane Oustaz waaw Pape man yaakaar naa daanaka awma lu may wax ah. eh, li tax awma lu may wax mooy xool bi dafa sedd mm-hmm. kon Sénégal seen xam nga bu fekkente ni bi yàlla dafa la def nga nekk joueur. nga gis koo xamante ni bu ñu ko passé mu réceptionné normal. contrôlé normal passe normal. loolu man def la dul rek tàccu. tabaarakallaahu te def na loolu macha allah. Eh, ñun li taxoon ñu toog fii. mooy bu fekkente ni bi dafa nar a wàcc yoon ñun ñu jéema a teg wàcc yoon bi. moo tax bi ma ci gisee ñu xam ne moom la ñu xam ne moom mooy ñun. loolu moo tax tabaarakallaahu ñu sant yàlla bu baax. te nag. li war li waral ni moom li mu def jaar na yoon. Mhm. bu fekk continue bi dafa wàccoon yoon kon ki génn léegi ci téléphone bi. bu duggee dana wax leneen lu dul lool. Mhm. kon nag sëriñ bi laa fut dafa ukk. Mhm. yal na yàlla bàyyi laak sa xel. amiin mottalil la. en tout cas ñi nga fi représenté woon bég nañu. ñi nga fi représenté woon. muy Tiwaawan. ñoom ñëpp bég nañu tabaarakallaahu te taalibe yi nekk feneen. ak nit ñu baax ñi sax nekkoon feneen bég nañu. soo gisee ñii ni ñu toogee. ak déglu bi ñu la doon déglu religieusement. religieusement mooy wane ni wax dëgg yàlla ñëpp dégg nañu macha allah. la yàlla mottali émission bi yal na yàlla baril émission yu ni mel. parce que lii dañ ko soxla. Ah, ah. réew mi. Hmm. ñoo soxla parce que dañoo tàyyi nag ci yenn yi. Hmm. am na yoo ne bii baax na sax ci dur gi la bokk. Hmm. mais nag yenn saa yu buy ñëwee. ak surtout guddaa juma yi. ñu may nu yii baax na. bu tayee ñu ñëw Kajoor boo liggéey ñu dem boo liggéey ñu dem Gànnaar. da ciy baax parce que lay bëggee mhm. mais lii neex na te baax na macha allah su ko defee étudiants yi nga xamante ñi ngi ci àll bi nag mhm. ñooñu te dëkk ci biir réew mi mhm. xam nga étudiant moom xam-xam rek la bëgg ñoom ñëpp ñi ngi àndandoo tabaarakallah rawatina suñu mbokk yi nekk Jidda yi nekk euh, Madinatu Munawara yi nekk ci Iran yi nekk Tunisie ñoom ñëpp ñu ngi envoyé ay message di bëgg di ñaan yàlla lii daal yàlla na ko yàlla barkeel macha allah jërëjëf Pape ñi ngi kontaan bu baax di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla nangul suñu koor koor nii lay mel daal yal na am macha allah jërëjëf oustaz uh-huh. ñu ngi lay gërëm bu baax ñu nit ñun ñëpp itam d'accord nañu ni émission bi yëpp nag dañu koy déjee oustaz Pape Hann macha allah mu ne eh, xam naa ni xol bi sedd na lool lool lool lool ñu ngi lay ñu ngi lay ndokkeel bu baax oustaz pap an ndax xam naa ni war nga kontaan ci lii donc yàlla yàlla yàggal taxawaayam moom itam